yéen ñëpp nag ndaxte mënoon a demee neneen ak li xewoon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre ca Togo ndaxte mënoon nañ ma dóor fenn fii ba may dee ma nekk ci chaise ma nekk ci chaise roulante mënoon nañ mënoon mënoon nañ ma dóor fenn ah ngeen ñëw sama page sama page Facebook naan RIP yéen ñëpp naan RIP mais sama photo fees dell ci seen statut mais américains yi ak français yi naan kii kan la woon fees na dell saf na sàpp ci seen statut yeeg ñoom seen waaw munoon naa gën a ñaaw mënoon naa gën a métti waaye li xew ñaar fukki fan ak ci weeru octobre ca ca Togo lenn rek lay tekki mooy askanu Togo nekkul ci jàmm askanu Togo nekkul ci tedd nga askanu Togo ak kam ak yelleefam kenn respecté wu ko ndaxte koo xam ne mun nga dóor député député bu Togo bu jigéen bu judd 1958 moo taxawoon sama wet député bu jigéen judd 1958 mot la yaay lu ëpp juróom fukki samba booy ay nervi di ko dóor kon yow bàyyiwoo kenn ku mun a dóor député CEDEAO député CEDEAO ñu ngi la takkal ñaari maaraanu kii maaraanu kiiraay ñaari immunité bu Sénégal ak bu CEDEAO koo xam ne bëccëg booru tàkkusaan nëbboo sa kanam ngay dóor ba deret tuuru ngay dóor ba tànk damm ngay dóor ba bopp toj ngay dóor ba deret ba bëccëg mu leer nàññ ca tàkkusaan nëbboo sa kanam mais kon CEDEAO bu ñibbee Guy Marius Sagna bu ñibbee mais caméra bu amulee micro bu amulee kon yow lañ ngay def askanu Togo li ma leen di ñaan mooy ngir yàlla wax ji du waxu Guy Marius wax ji nekkul am gii Marius Sagna jàppal Guy Marius Sagna indil gii Marius Sagna wax ji mooy askanu Togo ak yeneen af ak yeneen askan ci Afrique lii ñuy dund du dëgg du yoon fàttaliku leen fii senegal bu ñuy woote résistance bi mu amee ñeneen ñu dëkk ci yeneen réew di wax ci lu xew senegal nan du dëgg du yoon suñu xol da doon sedd kon ñun itam bu ñu amee suñu ay frères ay sœurs suñu ay dëkkandoor ñu nekk ci Togo wala feneen ci Afrique ñuy dund lii waruñu xaar tubaab yi di wax ci Togo ñun ñoo wara njëkk wax ci Togo waruñu xaar ay Amnesty International di njëkk wax ci li xew Togo wala ci beneen réew bu nekk ci CEDEAO ñun ñoo war a njëkk wax ci li xew suñu réew lii xew Togo du leneen lu dul ñaari gis-gis ci CEDEAO yi nga xam ne ñoo jàkkaar lool depuis avril deux mille vingt quatre gis-gisu CEDEAO bi nga xam ne CEDEAO lekkukaayu xaalis la CEDEAO pour bànneexu député la ak bànneexu ñi nga xam ne ñoo fay nekk amuñu fa taxawaay ngir sàmm ak ak yelleef askanu Sénégal ak yeneen askan yi nekk ci CEDEAO waaye ñoom seen njëriñ ak ñoom naka lañuy ñuy jëfandikoo CEDEAO ngir gën yàgg ci seen bopp réew muy benn gis-gis ñaareelu gis-gis bi mooy CEDEAO waratul nekk ngànnaayu ñi jiite réew yi ko ëmb CEDEAO dafa war a nekk ngànnaayu ñi nga xam ne ñooy askan wi yow au lieu nga jël doole Togo bi nga xam ne askanu Togo moo la ko dénk ngir dal ci kaw say doom ndaxte rek dañoo am gis-gis bu wute ak sa bos danga war a jël doole Togo ngir génnee Togo ci ndóol ngir génnee Togo ci ñàkk ngir génnee Togo ci ndaare bi nga xam ne moom senegal ak yeneen réew yi nekk ci CEDEAO ñoom ñooy ñun ñooy ndaare ci àddina bi ci ñaar téeméeri réew yi nekk ci àddina bi réew yi nga xam ne CEDEAO moom la ëmb dañoo bokk ci fanweer ak juróomi réew ndaare donc booy jëfandikoo doole Togo booy jëfandikoo doole CEDEAO da nga koy jëfandikoo ngir génnee askanu réewu Afrique sow jant ci ndóol ci ñàkk ci feebar ci ñàkk xam ci ñàkk mën a bind ci dem faju Maroc Tunisie France ak ñoom seen ci bàyyi dem jàng États-Unis France ak ñoom seen doole bi loolu lay jëriñ waaye doole bi kenn waru ko jëfandikoo ci ay doomu Togo ci ay doomu Sénégal ci ay doomu feneen ak feneen ngir dañoo bëgg a génnee suñuy réew ci dictature lii xew Togo li muy tekki mooy président Faure Eyadema dictateur la ma leen di fàttali ne président Faure Eyadema ki nekkoon président balaay moom mooy baayam Gnassingbé Eyadéma donc Togo dynastie la le Togo est une dynastie néocoloniale la Togo est une dynastie néocoloniale maanaam kii nekk ci boppu Togo tey jii nii Faure Eyadéma dafa donn Togo ci baayam waa Togo nee nañ ñoom dañoo bëgg a génn ci buur ci jamonoy buur biñ leen teg baay bi pare doom ji jël bu ñu moytuwulee doom ji bu paree sët bi mooy jël waa Togo nee nañ dañoo bëgg a génn ci loolu président bi dafa soppi constitution bi dafa def coup d'état constitutionnel xam nga fii dañuy wax ay ay coup d'état militaire coup d'état militaire mais amoon na coup d'état militaire bu amoon Niger benn bakkan ratul benn bakkan ratul mais mais fii ngay gis ay coup d'état constitutionnel ay fukki nit juróom fukki bakkan dee ñun fii Sénégal ñetti at yi lu ëpp juróom fukki nit dee nañ donc balaa maa dee ñu naan coup d'état militaire ba pare di tëj seeni gët ci ay coup d'état constitutionnel ci ay coup d'état économique ci ay coup d'état sociaux ci ay coup d'état politique lii moo xew Togo am naa nag jafe-jafe pour xool lan lay tànn ci li wax ci nasaraan ak lan lay bàyyi ndaxte wax naa lu bari te lépp li ma ci wax li ko taxoon jóg mooy leeral li xew Togo man këyitu CEDEAO moo wax ne képp kuy député CEDEAO toogaloo ci assemblée bu CEDEAO yow sa askan sa askanu réew bi nga jóge yaa ngi fa toogal mboolem réew yi nga xam ne moom la CEDEAO ëmb kon man Guy Marius Sagna bu ma nekkee député CEDEAO waruma rekk waxal Sénégal réew askan yëpp laa fa war a waxal askan yëpp yi nga xam ne ñu ngi bokk seen réew mu ngi bokk CEDEAO loolu moo ma may weer yële passé ngeen dégg ma ma wax ci Embalo fële ca Guinée Bissau mi nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ko seetaanee dina taal Guinée Bissau loolu moo ma mayoon ma wax ci lu xew Togo jamono yooyu fekk xaw moo nekk sax naa dem Togo loolu moo ma may ma wax ci yeneen ak yeneen réew CEDEAO moo ma may doole boobu léegi nag dafa am ñoo xam ne biir CEDEAO li ñu tàmmoon mooy lan mooy xam nga lan la yow Guy Marius Sagna bul wax ci sama réew yow itam bés bu sa tuuru réew jotee man du ma wax lu ñagas ci sa réew jàpp naa sa sikkim jàppale sama sikkim ma ne leen man lu xew ci Sénégal na ngeen wax lu xew ci Sénégal te ngeen gëm ko te ngeen gis ko wax leen waaye man li xew Sénégal kenn du ma si jiitu ñaareel bi lu xew beneen réew naa ko wax parce que askan yëpp laa fa teewal lii de moo indi ay dóor moo indi ay toj bopp moo indi ay damm loxo moo indi ay deret wala ngan moo indi juróom fukki samba boy ñëw daanu suñu kaw loolu dong la du leneen dañoo bëggoon woote ndaje ndaxte dama ne waaw comme yàlla def na maa ngi dem Togo ci ndaje sedd CEDEAO bàyyi ma profité ci ndaje bi pour bu fekkee mun naa dajeeg waa Togo ndaxte juróom benn weer bu nekk dinañ waxtaanee Togo dinañ waxtaanee senegal dinañ waxtaanee mbooleem réew bu bokk CEDEAO yàlla def na naa def fukki fan Togo yàlla def na dimanche vingt neuf octobre amul benn activité amoon na député yu doon amoon na député yu doon nelaw man ma ne du ma nelaw dama bëgg a déglu askanu Togo ñu ne yow nag da ngay jaay affaire. da ngaa bëgg a indi biir CEDEAO loo xam ne ñun xamuñu ko woon dinañ la dóor te suñu loxo du la dal loolu dong la loolu dong la du leneen donc ay togolais ne dañoo bëgg a gisee ak ñoom seeni député muy man man deputé ma ne damaa bëgg a gisee ñi nga xam ne man maa leen représenté biir Togo muy ñoom